asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki trois Argentines TV ñu ngi leen di nuyu bu baax leen ziar ñu ngi fii ci Touba tey ci Buqaatul Mubarak ñu koy wax euh, Touba Jannatul Firdawsi waaye fekk fi kenn koo xam ne mu ngi bokk ci kàngam yi nga xam ne nii ñu ngi doxal diine fii ci Touba muy Serigne Abdou Guèye Ridial ñu fekk ko fii ci Touba nag ci gërëm gi war a seq ak moom ay laaj yoo xam ne mu ngi jëm ci wàllu faj euh, kon ni bàyyi ko mu nuyoo rek ñu doog a ci laaj bi. sëñ Abdou Guèye wa inni u'iizuhaa bika wa surriyatahaa mina seytaan rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun asalaamaaleykum mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu rawatina mbokki taalibe yi di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom may ko fan wu gudd tam yeggale ay naalam ki darajay lislaam tan ànd ko ak moom noo ngi nuyu noo nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu waa Touba Argentine TV yëpp leen jërëjëf kon euh, sëñ Abdou euh, tey ñu dugg sóobu ci waxtaan wi gis nañ ne danga fi faj te it gis nañ ne macha allah nit ñi euh, dugmal nañ la tey jii buñ doon laaj lan moo dugal ci métier mi looy wax. dellu santaat yàlla bu baax laaj nga loo xam ne sa war nañ cee tontu bu baax ndax métier mi du métier moo xam ne dañ cee dugg day loo xam ne dañ cee judd ndax suñuy waajur ñoo ci nekkoon suñuy maam ba ci man kiñ ma tudde sax. ci métier mi la nekkoon kon métier mi doonul loo xam ne dañoo daa xew rek ñu dugg ci dañ cee judd loolu moom mooy li li nga xam ne bii moom la yàlla dogal ci ñun. Euh, métier mi euh, tey jii diggante rab ak umu ak euh, lu mel ni jàngoro yi nga xam ne mu ngi dal yooyu lan moo ci sa spécialité. waaw bari na lool xam nga nit ki moom yi ko mën a tëj dafa bari bu fekkee ci wàllu umu la moom la ñuy wax ki nga xam ne ay buntam dafa tëju bunt yu tëju nag daa doon ay façon am na koo xam ne mu ngi xëy di am cinquante mille francs par jour waaye bu kumuteem deñoon rek mën naa am cinq cent mille par jour bu fekkee ne nag demul ci ko xam loolu mën naa dund loolu dund gu yàgg-yàgg te du xam lan moo koy saafara moo tax nit ki war na bu gisee ci boppam loo xam ne daawu ko gis wala ni wërsëgam di ñëwee yéex na par rapport ak bu njëkkoon war naa xool ay mbiram ba xam lan moo ko tëj ndax am na koo xam ne tey benn miskit rek moo tee ay mbiram déclenché am koo xam ne tey benn euh, kilo suukar rek bu ko joxe woon ay mbiram déclenché bu ko defee kooku bu ñëwee ci ñun nag wala mu woonu téléphone dañuy seet ay mbiram jëkk bu fekkee raba ko jàpp moo ko tëj wala li ñuy wax cat wala li ñuy wax liggéey ñetti yooyu foog nga seet nit ki pour mën a xam lan moo ko tëj ci ñetti yooyu soo ko xamee rek da nga koy daal di mën a saafara ci lu gaaw a gaaw kum dal rek boo ñëwee ci ñun bu soob yàlla loolu moom ñu ci xàmmee bari na lool lool lool loolu moom dañ koy saafara ci lu dul yàq incha allahu rabbi mhm. ko xamee ne nii yàlla dogal na rab dalaa jàpp. Mhm. loolu it ndax nga xam-xam. waaw xam xam-xam bi mooy rek dañ koy seet njëkk ndax ñett yooyu rek moo mën a jàpp nit ci wàllu ñaan rab wala cat wala ñu liggéey la loolu boo ko seetee rek da ngay daal di xam léegi léegi xam ne kii kat dañ koo liggéey wala rab a ko jàpp wala cat ko jàpp. Euh, mu mel ni wàllu rab tamit dafa nekk euh, mu mu xaw a doy moo xam ne euh, léeg-léeg nit di nga gis maanaam àgg na ci sax ba di téye ay cëram. ba bu doon ko góor gu waroon a mën a takk soxna sax loolu far na dañ koy jox soxna sax te du ci man dara. waaw am na ñu lay dikkal ngir lu may waaw xam nga ñun moom lépp lu lu ci bari duñ faj lépp waaye lu ëpp dañ koy faj ndax alxuraan maa faradnaa fi kitaabi min shay'in bàyyiwul dara. yow miy jàng yaay xóotal sa xam-xam rek pour xam lii wala nga gàttal sa xam-xam pour xam lii waaye loolu mooy li ma njëkk wax rek lay dënk bala ngaa mën a xam nit ki loo koy faje fook nga xam ban feebar la am waaw nit mënoo koo faj te xamoo feebaram feebar benn eh, première chose bi mooy da ngay seet ay mbiram njëkk ndax raba ko jàpp wala cat wala liggéey ñett yooyu moom bu mu ci doon rek dañ lay faj ci lu ci kattanu suñu borom. Euh, kon kon daal maanaam yow li ngay njëkk a def mooy da ngay ki. ba mu ñëw ba agsi doog a nga doog a jublu nag ci paj benn mu ñëw ba agsi benn rek ñu seet ay mbiram ndax mën naa ne foo mën ne ci àdduna bi rek li ma ci déggee mooy ku newoon bitim réew te yëg dara ci sa bopp mën naa jox ko ak yow ngeen ngeen ngeen ngeen liggéey foo mën nekk ci àddina rek bu ñu jokkee téléphone incha allah li nga bëgg xam danañ la ko xamal ba mu leer nañ te du jar ngay déplacé wu mm-hmm. lu ñu la war a joxit dañ la ko jox ba nga jot ci te du jar ngay déplacé wu mm-hmm. loolu ñu ngi ciy jëflanteeg ñu ne bitim xam nañ ko bu baax ngir ñii dégg ñi lay dégg te mësuñu la mësuñu la gis te mën na am sax ci benn côté rek lañu la ñu jëflante yow muy wàllu umu ndax tey mën nga ñoo wax sa spécialité tey jii yi nga xam ne ni tey jii yow mën nga ko ci wàllu wàllu faj. waaw li ma xam ci wàllu faj mënuma koo wax ci benn jataay ndax njàng mi dafa yàgg xam nga ko jàng fukki at ak nangam wala nga judd ci mbir ba màggee ba am ñeent fukki at yu tegal euh, wala ñeent fukki at yu manqué tuuti la nga jàng mënoo ko expliquer ci ay minutes. waaye li nga xamante ne bii bokk na ci yi ëpp ci lu lu nit ñi sàkku si ci ñun mooy ki nga xamante ne bii wërsëgam dafa néew te bëgg mu yaatu loolu am nañ fi ay secret yoo xam ne ndax fii nga ma fekk tey ci jannatul firdawsi dama xool fi nga xam ne daanaka moo ci gën a sori ma wut foofa kër tabax ko pour di fa mën a liggéey sama liggéey ndax li may liggéey bu soxlawuma di jaxasoo ak mbooloo ma bari ndax damay am am na yu ñuy defar ci wàllu ki nga xam ne dafa bëgg a am wërsëg wàllu alal ci ay mbaamu sëf lañ koy liggéey loolu nag bu ma ko bu ko nit déggee mën naa jàpp ne ak njabar la waaye dug njabar ndax mbaamu sëf yàlla moo ko sàkk ci càkkitéefu suñu borom yi la bokk nañ ko xam lañ cay liggéey tamit dañ ci wut ñeent bu fekkee ki nga xam ne daa bëgg a bari alal ndax mbaamu xam nga loo ko sëf mu sëfoo ko bu ko defee euh, dañuy daq benn buñ ko liggéeyee ba noppi liggéey dafa gudd moo tax du jar leeral dañuy dàq benn mu dem sow benn bi dem penku benn bi dem gànnaar benn bi dem saalum ci ñeenti xibla yi buñ ko liggéeyalee nit ki ci turu ndeyam ak turu baayam incha allahu rabbi kooku balaa balaa diir bu gàtt rek dana commencé gis ci wërsëg loo xam ne daw ko gis ndax bu njëkkoon da nga daan gis mag ñi jël mala boobu ñuy wax mbaam yeew ko seen kër ngir secret bu ci nekk donte sëfuñ ko dara sax dañ koy teg seen kër rek ngir secret bu ci ne secret boobu nga xam ne nag nit mën na cee jaar pour am alal ñun am nañ ko fii moo tax ñuy dëkk ci fu sori nit ñi pour yooyu ñuy liggéey duñ ko mën a jaxasoo ak nit ñi ak dañuy am soxla place yoo xam ne lu mel ni xorondom wala yooyu dañ koy am fii te mënuñu ko am ci biir dëkk bi moo tax ñu beddi ko ba fii pour liggéeyal fi nit ki nit ñi lu mel noonu. Hmm. képp euh, ci ci yi si bokk na ci loolu. bokk na ci itam ki nga xam ne dafa bëgg wërsëg wax naa ko ba tey benn jaaro bu ñuy defar jaaro bi ñu ngi koy wax xulóobul xalaayax képp koo xam ne wërsëg moom rek nga bëgg te wut ko di sa yitte te nga jaar ci yoon wi boo ñëwee ci ñun bu ñu la liggéeyalee jaara bi incha allah yónnee la ko bu dee da ngay jaay da nga jaral bu dee dangay lijjantikat dana lijjantiku bu fekkee ni itam say mbir daa dëgëroon mënoo fexe ba am dara wala loo am sa loxo du ci toog bu soobee yàlla boo ñëwee lool bu ñu la joxee jaara bi dana saafaraw lool benn la am na boo xam ne wax naa ko ba tey ñu ngi koy liggéey ci eh, eh, suuratu fatx yi innaa fatahnaa laka fathan mubiinan boo demee bay jeexal muhammadu rasulullahi wala siina maahu asiddahu alal kufaari ruhumahu baynahum tarahum ila axri aaya buñ ko liggéeyee ba noppi jox ko nit ki mu di ko sangoo incha allah xobi ngeer lañ koy booleel ak leneen luñ ko war a booleel nit ki faw mu am wërsëg te dina ko yomb te du ci sonn ndax boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ak ci way ñàkk yi la bokkoon waaye mujj na woomal lool loolu lu ko suñu borom defal la saar woowee nag ci la ñuy jaar ba ki nga xam ne daa ñàkk ñu woomalal ko ci kàttanu suñu borom loolu ñaar la benn bi dañ koy jël boole ko ak doomu guro ak bérwéngel ak alxuraan bu bari ak sungufu or ak sungufu xaalis suul ko juróom-ñetti fan bis ba bis ba dellu si lañ koy suul ci biir suuf si jox ko nit ki mu di ko diwoo incha allahu rabbi dina am wërsëg ba sant yàlla tamit loolu wér la boobu yenn la ci beneen bi dañ koy liggéey moom la ñuy wax wallu mag pour ki bëgg wërsëg buñ ko liggéeyee ba noppi dañ koy jox nit ki bu fekkee daa nekk bitim réew mu tànn billet ba fa gën a fort billet ba mu gën a bëgg a bari la rek wala fu mën na ci àdduna rek bu dee Sénégal na jël billet 10 000 bu dee biti réew na jël billet bu mag bi mu bëgg rek dugal ci biir sangaay bi di ko sangoo incha allahu rabbi billet booba dina ko yomb ba mu xam ne lii moom am na lu ci rax nga xam ne li Sëñ Abdou Xaadir ne rek xaw ma jàmbar ku ñu dimbali laa xam. loolu moo fi nekk ba tey loo fi séen mu tàkk bañ di ko yéem rek kookee am na fu mu jaar ak ab ñaankat loolu moom mën naa la ko wax moom loolu benn la ci ci ci yi ñuy joxe te yooyu tamit xëy na bu ñu sixaatee yeneen waxtaan benn bu ci ne dinaa la wax fan la jógee ak fan lañ ko jàngee ak fan lañ ko teg ci loolu ñuy wax. incha allah jërëjëf kon mu mel ne alxuraan wax na yooyu yëpp euh, mu ngi wax afalaa yanzuruuna ilal ibili ci ci ci rab ndab rab yu àll yi mu ci joxe ay ay euh, léegi ki nga xam ne moom. ñëw na jaaxle ci mbiram te xam umpule boppam te mu leer na am nañu koy feeñu guddi ci ay gént yooyu te du xam nu mu demee ndax bu dikkee ci yow mën nga ko jox ay tegtal. waaw xam nga boo demee ci médecin moderne traditionnel bi sax bi ñuy wax médecin tubaab bi bu malaat ñëwee li ñuy njëkk a def mooy dañ koy consulter ba xam kii jàngoroom ban ban jàngoro la am su ko defee ñun tamit loolu dañ koy royee ci ñun ndax ñun sunu sunu sunu bi ñuy def ñun moo jiitu ñoom bi ñuy def. seet loolu yëpp ci seet la la dugg ñoom ñoo koy wooyee consultation waaye consultation ci wolof mooy seet boo ñëwee ci ñun tamit ump la sa bopp da nga ñuy bàyyi sa bopp ñu seetal la liñ gis te loolu ñu gis ci xam-xam lañ koy teg te yow mi ñu koy wax doo ko sikk sàkk bu ko defee gàllankoor boo am danañ ne la bii gàllankoor moo la téye boo defee nangam ak nangam incha allahu rabbi sa gàllankoor boobu dina deñ ci kàttanu suñu borom loolu moom ñi ñu bari na loolu moom. parce que nun li ñuy def euh, li ma waxoon léegi rek du luñ tëb tàbbi ci dañ cee juddu di ko def di ci am ay résultats ay nit di ñu ci booleek ñeneen ñu koy liggéey di ko liggéeyal suñu bopp euh, loolu moom ñi ci xam xam nañ ci baax a baax wax dëgg yàlla ñu ciy sant yàlla bu baax. Euh, kon tey ji ñi nga xam ne ni ñu ngi nekk bitim réew. ci ñoom nu ñuy def dañuy jël sa numéro wala wala nan ngay jëflante ak waaw ñoom dañuy jël numéro bi suñ jëlee numéro bi numéro bi xay na dina jàll ci suufu écran bi ñu jël ko woote ci bu ñu ci wootee incha allahu rabbi luñ soxla rek ñoom mën nañ koo laaj bu fekkee ne yàlla dogal na muy lu ñu xam te man ko dañ leen wax nañ cee jaaree bu fekkee ne du luñ ma nit man aw ma rëyuk mënuma nangam ndax xaw ma daa bokk ci teraangay borom xam-xam lépp luñ ñu sant te fekk loolu mu nekk fi dina leen wax nañuy jaar ba mën a jëriñu incha allahu rabbi. ci leeral maanaam gis nañ ne euh, wàllu ñaan dafa ñaari ñaari ñaari yoon la mooy zulmaaniya ak nuuraaniya yow ban nga ciy jëfandikoo. man nuuraani yu laay jëf laa jëf la ndax alxuraan laa jàng. Mm-hmm. waaw xam nga boo tolloo ci jàng sax dangay jàng ñaar yëpp. Mm-hmm. waaye boo demee ba xàmmee nag. da ngay tànn bu leer bi nga di ko jëfandikoo bàyyi bu lëndëm bi mm-hmm. ndax bu lëndëm moom musulmaan yu moom lu mu la may tey mm-hmm. bu subaa mën na laa xañ lu ko ëpp mm-hmm. moo tax ñun nooraan yu rek alxuraan kese la ñuy liggéey dara raxu ci mm. euh, comme tey ji mu mel ni yan euh, nga nit nga gis ne yow jëflante nga ak ñoom te ñu ci ñu ngi ciy gis réussir mënuma koo lim loolu moom mënuma koo lim ndax nit ñi ñooy waxal seen bopp man duma laaj kenn naan ko ndax la ma la joxoon nangam yaay woote fi mu nii sama téléphone bii rek mën naa la cee génneel ay yoo xam ne ñoom ñëpp ñu man da wax dëgg yàlla bi ma jëlee ñaan gi ba tey maa ngi sant yàlla samay mbir soppiku na mën naa la koo génneel nga dégg te loolu ñu nit koy waxal seen bopp man du ma woowaat kenn naan la ndax la ma la joxoon nangam ak nangam su ma la ko suñ xasee séq ñaan gi ma jël sa tur sa turu yaay ñaanal la li ma la war a ñaanal fexe ba ba nga jot ci ba wax la ni nga koy jëfandikoo boobu lay fàtte sa tur ëllëg gi si biir yow yaay wootewaat ne mën a diw nangam ak nangam kat seqoon nañ ko wax dëgg yàlla maa ngi ciy sant wala nit woo ma ma diw ñu boole mm-hmm. te xam nga ku gisul njëriñ ca la la nga ko jox mm-hmm. yaakaar naa du la boole keneen waaw ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ñu ngi koy delloo yàlla nag ndax boo ab jaam bu defalee moroomu jaamam mm-hmm. mu sotti lépp yàlla la ñu ngi ko koy delloo bu baax a baax a baax tey jii ci wàllu tawat tawati yaram ndax loolu tamit di nga yëngu. waaw tawatu yaram moom dañ ciy yëngu ndax du yëpp lañ mën a faj nag mooy li ma waxoon léegi rek ndax xaw ma ci teraangay xam-xam la bokk. tawatu yaram bu mu ci mën a doon tamit bu fekkee ku ñëw ba ci su sama kër la. xëy ne boo fi ñëwoon waxtu suba. di nga fi fekk nit ñoo xamante ne bii façon tawat bu nekk lañu am. loolu nañ lañ koy defee tuubaa di ko defee noonu ndakaar te euh, ñiy ñëw ñu ci ëpp ëpp diir bu gàtt rek suñu borom dana leen dimbali ñu jot seen bopp ci wàllu wér-gu-yaram mm-hmm. am na ci tawat yoo xam ne na bu ñu ma ko santee dama leen di wax yooyu tawat mënu ma koo faj mm-hmm. waaw ndax man mënuma lépp man lépp moom yàlla rek moo ko def mm-hmm. waaye ki ñëw ma defal ko consultation xam ne tawatam bii mën naa koo faj am na tawat yoo xam ne sax jërul consultation su ma jàkkaarloog borom rek dinaa xam ne kii tawatam bii tawat sangam la ndax ku mel ni daa am ndox siti wala hémorroïde wala yooyu du jarul consultation moom mooy ñëw ne la damaa am hémorroïde bi génn wala bi ne ci biir jarul consultation da koy daal di jox garabam rek mu saafaraw incha allah rabbi dañ koy faj mm-hmm. dañuy faj hémorroïde interne externe perte blanche mm-hmm. euh, dañ koy faj mm-hmm. en même temps dañuy faj góor gu néew doole ci sëy foofu laa doon jëm si ndax loolu moom fi mu toll nii mën nañoo wax ne jamono ji moom daa daa lëmbe jamono xale bu ndaw ngay gis koo xam ne daanaka xaw naa wàcc la li koy waral mooy lekk yi xew léegi. Mm. ndax da ngay gis koo xam ne du du foye boppam benn yoon musta xam jigéen ndax amagul soxna mm. waaye teewul muy dund néew doole ci sëy kon dangay mm. xam ne kon lekk yi ñuy lekk moo baaxul waaw waaye ki nga xam ne daf koo dab nag laa mën a faj waaye ki ko judduwaale moom yaa ngi dégg lekk ki may waxal téléphone mu wax ma benn tawat ma ne ko ndax dalaa dab tawat boo nga xam ne dafa laa dab mm. boo ñëwee ci sëriñ Abdou Guèye Rijal yàlla mën naa saafara sa tawat jooju waaye ki nga xam ne daa am tawati judduwaale ñun man jàngaguma luy faj tawati judduwaale loolu jàngagunu ko waaye koo xam ne daal sa tawat dalaa dab muy impuissance sexuelle mm. wala nga tëlee ci sa wàllu say completement mm. tam dab la as boo mën a am boo dañ la faj bu soobee yàlla uh-huh. kon uh, xam naa ne fi mu toll ñu war a toll ci Caatal TV eh, yan kàddu ngay ngay waaw mooy li ma doon wax léegi it xam nga ñi nga am nit ñoo xam ne itam nga may ma rek ma jàllale ko ci pour ñi nga xam ne dañuy soxla wàllu bayre bayre it am nañ ci yoo xam ne moom la ñuy wax bayre réew mm. ki nga xam ne maanaam dafa bëgg aw turam àdduna mm. siiw ñëpp dégg ko mm. bayre réew ak bayre wërsëg nag du benn am na ñoo xam ne dañuy siiw waaye duñu yor dara uh-huh. am na bayre yoo xam ne da ngay siiw ba pare am loo jàpp uh-huh. moo xam muy bayre njaay wala bayre jigéen ñi bëgg la wala bayre pour góor ñi bëgg la yooyu buñ ci jëflantee suñu borom dana la ci defal ndam mm-hmm. incha allahu rabbi di nga saf góor ñi saf jigéen ñi incha allah rabbi mm-hmm. kon ci wàllu njaay ci wàllu maanaam njaay moom daa yaatu ndax jigéen ji ci kenn waaw kooku moom dañ koy defal tilimut am na téere bu mag ñi daan wax tilimut mm-hmm. am na yeneen secret yoo xam ne dañ koy liggéey fudd euh, siime ko fuddan jox ko nit ki mu fuddane ko ay baaraamam bu dee góor wala bu dee jigéen ndax am na góor ñoo xam ne soxna da leen a të wala góor ñoo xam ne dañoo bëgg am soxna su tubaab ba pare soxna sa bëggu leen dañ leen ci jàppale bañ jot ca incha allah rabbi hmm. ndax waaw loolu yooyu moom am nañ ci ay ndam yi ndami ndam yoo xam ne mënuñu koo lim hmm. waaw bayre yi daam bayre góor ak bayre jigéen loolu li muy tekki mooy bayre boo xam ne góor yi kese ñoo lay bëgg hmm. am boo xam ne jigéen yi kese ñoo lay bëgg am boo xam ne nag góor ñi ak jigéen ñi ñëpp lay bëgg yooyu ay yoon la ndax tey ji boo jëlee eh, sant woo gis rek ab famille la loolu la liggéey ci alxuraan la ñuy jël am na saar bu ñuy jël boo xam ne 66 66 euh, aaya la aaya bu nekk dañ koy liggéey lañ ca war a def dugal ci benn sant maanaam boo demee ba yegg nga def njaay boo demaatee ba yegg fee nga def jóob xam nga sant woo jël rek ab fami la kooku ñooñu nit ñi dinañ ko bëgg a bëgg ba mu jaxle ci loolu moom te it day ànd ak bayre nag day ànd ak kaaraange kiis ñu ngi koy tàmbalee ci xale bu am juróom-ñaari at ba ba muy am cinquante ans dañ koy liggéeyal kiis bu passé cinquante ans nag amatuñ ci amatuñ kiisam waaw. kàddu yu yi ñuy tàggoo mooy sant yàlla bu baax sant sëriñ Touba ndax xéewal yeeg teraanga yeeg résultat yi ñuy am ci nit ñi yëpp mooma moom lañ koy delloo ndax su may sama jeexitalu bind sax trom laay jeexale kon kon damay gëm ne résultat yi ma nit ñi di woo di sant ak yi may am ci nit ñi yi ma yëg ak yi ma yëgul lépp Serigne bee maa ngi koy delloo lépp. di ñaanal sëriñ Muntaxa moom sëriñ basiiru yàlla may ko fan wu gudd te seen site bii di Touba Argentine TV it suñ borom euh, saxal ko fi yaatal ko lool ba mu daj àddina bépp ba lépp lu ngeen ci bëgg suñu borom defal leen ko yàlla na nu sëriñ bi boole defal tawféexi saayir ak yu baatin jërëjëfati sëriñ Touba ñu ngi lay sant yow bu baax a baax ci euh, déplacement bii nga def ñëw ba ci fii ci sunu quartier bii di Jannatul Firdawsi ngir jël si fi waxtaan ngir. jox ko askan wi ñu mën cee jëriñu ñu ngi la ciy sant bu baax a baax yàlla na ñëpp am jàmm ci barkeb Cheikhuna Cheikh Ahmadul Khadim jërëjëfati Serigne Touba. mbokk yi kon mu nekkoon euh, tey jii seenu doxantu bi ñu doon doxantu doon seeti góor yàlla yi nga xam ne ñu ngi ci ndëkk bi ñu war leen a feeñal ba nit mën leen a jariñoo tey jii ñu ñëwoon tey jii ab Abdou Guèye Ridial euh, muy koo xam ne nii tamit macha allah ndax li ñuy wax rek mbaax ci xol lay ne waaye ci kanam lay feeñ euh, mer naka noonu. mbégte it kazalika waaye boo ko ne jàkk xam ne am na lu yàlla def ci moom dënni góor yàlla yi ci la suñu borom def sekkareem kon ñuy sant ñëpp di leen gërëm di leen wax ne leen ku soxla numéro bi it mooy li nga xam ne nii moom mooy feeñ ci écran bi xanaa di leen jox daje ci beneen yoon incha allah dinañ waxtaan ak moom ci yeneen i domaine ndax yàlla def na ci moom loo xamee ne nii nit ñi warees na ko mën a jariñoo kon di leen sant di leen gërëm di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh